mbokki téléspectateur Equivox TV yéen ñi nga xam ni yéen a ñu yéen a safoo seen euh, journal de la ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen ziar itam di leen dalal jàmm rek ci journalu tey bi journal de la l'arène ma ci ànd saa su ne ah ak sama frère sama euh, sama xarit Babacar mm. Babacar euh, nuyooti naa la. maa ngi lay di la fayati soxna Oulimata Seck ah borom réew ju neex ji macha allah ah. <laughs> tey li nga zone am na solo. sa rouge tamit kenn demul mu des. kon noonu la fa demee maa ngi maa ngi lay bëgg di bëgg téléspectateur di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom. amiin aywa ñu seetaani ji revue des titres te ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 23 mars 2021 dañ ñëw ak yéen ci likkaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb tey xëtamu njëkk lam ca xëy fësal lenn la combat royal ba nit ñi doon xaar di ko déglu di xaar kañ lay am fu ñu koy tëggee ndax dina am wala du am mu mel ni ki nag wàllik Nicolay daa mel ni wax jooju askan wa doon wax daa mel ni tàbbiwul ci noppi ku tëx maanaam wax ja dégg nañ ko ba combat ba fi mu nekk nii nag dañ caa fas yéene nag jublu suñu làmb xëy tey wax nu ko wan ñu Modou ak Ama ñoom ñaar ku ci nekk wàcc ba daar jege suuf lool di tuus yëglikaay bi nag nee na jàkkaarloo bu rëy grand jàkkaarloo xam ne fixé nañ ko kañ lan kay def suñu làmba nu ko wax le 6 avril daal la ñu xamal ne ca lay am ñaari mbër yi daal nu jàkkaarloo yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom nar na noo jàkkaarloo muy diggante Jin rek ak ki nga xam ne moo di Modou ant moo tax nag ki nga xam ne moom moo di Kona di ab coach nekk fa nga xam ne moo di ca kaay baax ci tëngi konaa daal la mu xëy xamle lenn la ne nañ ko favori ndax am na ci boobu combat mu ne bu baax a baax nag ku nga xam ne moom moo di Modou Anta bu Thiès ndax bu dee wàllum làmb la ku ne xam na ne moo ci jiitu Diène Kaïré gën ko caa yàgg te boo xoolee palmarès tamit ñoom ñaar bokkule wuñ ko donte Diène am na méritu bëree ak moom konaa la mu gis daal jàpp na ne kii nga xam ne moom moo di Modou Anta mooy favori te boobu combat combat boo xam ne tamit taxaw na te jàpp ne maanaam ñaari mbëri am na ca koo xam ne du favori wala boog boo bëggee dëgg muy Moussa ak ka nga xam ne moom moo di Sa Thiès bi di suñu làmb xëy tey ñëw ci boobu komba Moussa Ndoye nag moom loo ci mën a dégg ñu def ko favori wala ñu wañ ko ba ko def favori moom def na boppam favori ba pare te yemu ca ne na ay supporter bu ñu tëddee nañu nelaw ba yandoor musaandooy Ndoye ko wax de ne na bu neexee yàlla saa Sa man mënta jaar fenn ba duma ko daan daan ko kese laa seq ak moom te bu arbitre soufflé bu soobee yàlla danaa ko daan loolu du samay wax waxi Moussa Ndoye la yemu ca jàpp na tamit ci préparation boobu combat ne na jaralu ko daal génn fii nga xam ne moom moo di Sénégal loo ci mën a dégg daal

doyloo na ko muy consommer l'école bi ngir fas yéene nag waajal la nga xam ne moo digganteem ak Sa Thiès ndax ne na moom defar waa dong moo ko war ginnaaw ba mu jógee ci jafe-jafe ya mu amoon ci digganteem ak Garga Mbossé ñàkkoon boobu lépp combat yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax ñeneen ñoo xam ne nii moom bu fekkonte ne dañ leen a song ka leen songoon nag di Malick Sall ba mu leen wooyee muy waa làmb ji jégglu leen rawatina mbër yi yemuñu ca de ministre ba daal yëglikaay bi xamal nañu ne daal moom mu yore wàllum justice daal wax na tamit waxtaanam ak mbër ya di ñaan wala ñu koy sàkku ci moom maanaam daal audience boo xam ne bëgg nañ koo am ak ki nga xam ne moom moo jiite réew mi di le président Macky Sall yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey xëtam mu njëkk dugal fa lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy làmbi simple ja nga xam ne fan yi yëngu na ba yegg ci lool mel ni ki nag général Malika sunu làmb ñëwaat na ci moom ak un million ya nga xam ne gagné na ko bërki dem ca terrain gaal gi yëglikaay baa xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii lambi simple jooje moom tamit day lam ca fas yéenee teg romb na un million muy Fallou Ndiaye maanaam ñeenti million quatre millions daal la fas yéenee teg yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu te fasu ko yéenee def nag benn bés bu dul samedi jii nga xam ne ca la jëm fa mu koy defee nag moom du terrain gaal gi waaye fa nga xam ne nii moom moo di ci arène national daal la fas yéenee yóbbu ñeenti million tegal ko mbër ya maanaam ku man daan jël yóbbu sa kër loolu la Fallou Ndiaye def yëglikaay baa xëy ñëw tey dina wax lu mel ne que noonu leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne mooy record dan fay dem bu nu fa demee itam lan fay fekk mooy ba tam mbirum simple ma ak général Malika ma nga xam ne daal na mu imposé boppam wan gaaya bari ki dem ne taa tey daal bii géew maa fi man ba jël lan fa tegoon waaye yemuñu ca yëglikaay ba tamit wax na ak ka nga xam ne moo tëggoon làmba ja muy jax jax daal ñëw na di remercier ña nga xam ne nii ñoom ñoo di amateuru làmba yi leen sant bu baax a baax ci wuyu su ba nga xam ne wuyu su nañ ko donte tamit maanaam mbir ya amoon na ay rax ñoo xam ne ba nit ñay gàmmu ñoom raasum déem mu leen yëkkati woon ndax yëglikaay bi na lu toll ci ñaari millions yu ko ko na ci loo xam ne nii xam ne yenn ya dañ ko yàqate ba mu yàqu yàqu yaxet maanaam damm ko yemuñu ca am ca ñoo xam ne tamit comme ay raskati déem lañ dañoo gàddu ay sées ñoom yóbbu kon daal la olof di wax rek ñiy gàmm ak ñiy ras déem xulle ba àddina yi tukki du ñu mas a doon benn ndax ku nekk maanaam bokk wala saa yu mbooloo jógee boo bëggee dégg-dëgg di wuti lu baax wala di defi loo xam ne seen njariñ la wala lu leen di bëggal la dina am ay rax yoo xam ne dan cay rax di ras déem waaye nag nañu xam ne loolu amul solo ndax ab sées moom nga sàcc ko yóbbu ko sa kër pour man est-ce que njariñ la bari na ndax sées manta seer a seer pour man ba passé juróom-ñetti téeméer rawatina seesu plastique 23 mars 2021 tey nag comme ñu koy euh, amee habitude di ko defee dañuy ubbiwaat rek ak suñu quotidien làmb mhm. comme d'habitude ah tey jii Babacar nag euh, mu doon euh, mu am lu rëy rëy mhm. di grand jàkkaarloo fixé sur 6 avril diggante kii di Modou ak Ama Baldé loolu dina rëy de. <laughs> waaw loolu de dama naan yàlla nañu ko fekkee te tal ko. amiin yaa rabbi waaye boobu jàkkaarloo moom. Mm. soo bëggee dégg dëgg. Mm. Euh, làmb ji demande sociale làmb ji tey bokk na ci combat Modou Lô ak Ama Baldé mhm. loolu moom la yàlla dogal mhm. parce que ñëppay xaar fu ñuy dajee mhm. seenu jàkkaarloo bu njëkk fu ñuy waxante lu ñuy waxante loolu rek dèjà fi mu nekk nii lu doya doy waar la kon nag comme fixé nañ ko pour le 6 avril waaye nag lieu bi waxuñu ne TFM la waxuñu ne 2 la fu ci ne mën na fa am na am rek incha allah rabbi waaw wóorul ndax TFM loolu deux la mais dina am bu soobee yàlla pour le 6 avril mhm. ah loolu nag dañ ci profité nuyu waa Luc Nicolaï yéen ko rawatina suñu soppe Luc Nicolaï mhm. ak doom ja Willy mhm. ak ka nga xam ne moom mooy le coordinateur bu Luc Nicolaï production di Rayba di waa Mbour ñoom ñépp mais loo ci mën a dégg daal uli ah bii moom njardeem la. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci ci jàmm incha allah dañ fay jóge rek euh, daal di euh, dem ci kii di Moussa Konaté Moussa Konaté nag euh, entraîneur la hmm? mm-hmm, mm-hmm. noonu la donc mooy entraîneur mooy coachu baax mm-hmm. noonu la demee donc Babacar moom nag li mu xamle moo di ne Modou Anta est favori devant Diène Kairé nee na Modou Anta mooy favori ci kanamu Diène Kairé waaw loolu mu wax day nit ku nekk buñ la laajee te nga nekk technicien si sport. parce que sport bu mën a doon muy football ba muy làmb ji muy basket ba ak volley ba ak yëpp. buñ ci dee dem ci compétition rek du ñàkk moom favori. li koy indi nag favori sur le lay doon ci kayit yi. yaa ngi dégg mais outsider yàgg na gagné favori mais li mu wax noonu man mi dama si ànd ak moom te man mi boo ma laajoon tamit loolu laa lay wax. mu doonta jéen mooy euh, mu doonta mooy favori ci kanamu jéen. parce que li mooy moo ko jiitu si làmb. Mhm. benn li mu bëri ci ay combat jéen bëriwu ko li mu am ci ay ndam jéen amu ko. dëgg la yaa ngi dégg mhm. kon kooku nag su ngeen di dajee mhm. ak ndaanaan yi mu dajal bëreeg ñoom wax dëgg yàlla mu nekk sa favori defe naa ne loolu moom lu leer naññ la te itam koo laaj tey mu wax la mu dee la ko teg wax ji rek ci yoon. xam na ne jéen mu doon te mooy favori waaye ça ne veut pas ne nag Oulimata kani moo ko mën mhm. loolu ca géew ba lay leeral ndax jéen mérite moo tax tey muy bëri koo xam ne favorim la mhm. ndax xale la boo xam tamit yàggul si làmb mais wane na boppam da tey moo am méritu bëri ak ki nga xam ne moom mooy mbër mu mag di Modou Anta dëgg la kii di Moussa moom itam euh, dafa ñëw rek di dalal xelam tey jii ci suñu làmb di dalal xelu ay supporter am mu ne moom Moussa Ndoye euh, il rassure ses fans je vais battre Sa Thiès s'il plaît à nee na daal dina daan Sa Thiès bu soobee yàlla bu neexee yàlla waaw nit de boo jëmee ci xare surtout combat bi mu dugg moom Moussa Ndoye mm-hmm. parce que nag bu ñu waxantee dëgg ñu bëri dañ naan li ëpp ci nit ñi. Mm-hmm. yaa ngi dégg des fois am na ñoom da nga leen naan Moussa Ndoye Sa ñu ne la noon loolu du combat parce que Sa lañ jàpp ne moo man waaye nag. làmb balaa ñuy xam ki man ñu dem ca géew. mooy li xam naa moo tax nag moom muy dalal ay xel supporter bi wax ne na seen xel dal. bu neexee suñ borom bu ñu ko fekkee te tal ko. Mm-hmm. moom jàpp na ne day daan Sa Thiès. waaw gëm na si boppam. et tamit loolu moo war a ama. Ah. Mm-hmm. Moussa Ndoye tamit wax dëgg yàlla nekkul mbër mu ndaw. Mm-hmm. mbër mu magam mag la. parce que tey mbër yi mu bëril ak mbër yi mu daan ndax mu doon tamit yi ñu doon wax léegi Moussa Ndoye daan na ko. te ku daan mu doon ta ci làmb rek dafa doy combat yi mu jongante donte combat mu moo garga dakaa ñàkk waaye loo ci mën a dégg daal li mu wax moom la gëm te itam ci logique boobu la war a nekk ba ba ñu yegg ca combat ba soit bi suuf lee nag ñoom ñaar ñu xool fu wane di mujjee ki bëtam li mat incha allah mhm. donc euh, dañuy ñëwaat également ci euh, gala bi amoon euh, dimanche bi passé mhm. te kii di Jax tëggoon ko mhm. donc ñu gis ne général Malika mu daal di woon yóbbu lii di un million ya mu tegoon Euh, sunu làmb ñëwaat ci tey. waaw loolu mooy li amoon naa loolu defe naa ne ku ne gis na vidéo yi biir Equivox. Mhm. yaakaar naa ñëpp seetaan nañ nañu bëree ak na général daane. Mhm. am na sax yu ci des yoo xam ne dinañ leen ko wanaat ci biir làmb jooju la amee woon. Mhm. parce que wanaguñ leen lépp. bu soobee yàlla daal loolu moom defe naa ne ah mooy li am rek général Malika moom jël na tournoi itam du information ndax li tax mooy. tàmm naa jël ay tournoi maanaam gagné nañ ko kay moom mooy nekk information waaye gagné na moom du doon information <laughs> ci la dëkk waaw loolu moom bu arène national itam tey sunu làmb daal di cay ñëwaat mhm. avec euh, kii di Fallou Ndiaye mhm. moom nag euh, ñu xam ne ni li mu teg mooy 4 millions de francs CFA 4 millions bëri na Fallou fawut Fallou kay ñeenti millions ñeenti millions samedi ah uli loolu dana doy waar du mën a ñàkk de teg fi ñeenti million ñu bëri waaye xalaat naa bu keroog dama koy jël wax fa gars yi ma gis maa leen dàq ko bëri waaye loo ci mën a dégg daal ku yebu kon nga waaj pour samedi. <laughs> incha allah rabbi yàlla nañu ko fekk retal ko. ndax itam fàllu loolu mu def. ah vraiment lu yokk làmb la parce que tamit mbir boo ci bokkee olof na boo yokkul yaa wàññi te defe naa tey bu mënee teg 4 millions pour benn jour farn arène nationale samedi vraiment loolu ñu ngi ko ci daal mu jëlee ci ndam mhm. te itam bu yeboo daal amateurs yi nañ waajal mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy bëri léegi simple tamit nañu waajal xam ne samedi moom mhm. incha allah rabbi arène nationale dana xatat incha allah waaw euh, kii di ministre de la justice nag euh, Malick Sall moom euh, daal dina am audience ak mbër yi waaw moom nag neen na mbër dañ ko laaj ils m'ont demandé de les aider à rencontrer Macky Sall maanaam mbër yi dañoo bëgg ni kii di ministre de la justice jàppale leen ñu jàkkaarloog ak Macky Sall président waaw loolu day defe naa ne mbër yi buñ ko laaj seen i droit lañ laaj. Mhm. yaa ngi dégg ministre de la justice. di ndaw loo xam ni tey yoonu réew mi moom lañ ko dénk lépp lu fi at ci ci ku tooñ ak ku ñu tooñ moom moo ko yore mhm. ñu ko ñaanal tamit loolu mu yore yàlla na ko réussir donte bëri gi démb ci li nit ñi jàpp juum na ci ay wax mhm. te itam nit nag njuumte moom moom amul koo xam ne ni mag nga ko li bon rek mooy nga juum doo jégglu mhm. mais ku juum nangu ko ak ko tooñ nangu ko defe naa ñooñu neex na ñoo tëkkal tey nag bu mbër yi demee ci bureau yàq bi waxtaan mu déggoo ba di ko demander pour rencontrer Macky maanaam dajak président fanaa loolu itam du loo xam ne nii warul nekk demande bu sociale luy metti mm. parce que président Macky Sall dafa jiite réew mi mbëri tamit nekk ay personnalité ci côté bi ñu féete mm. nekk ay citoyen sénégalais mm-hmm. yow mi sax tey normalement wala muy man mi wala xulle male ku ci nekk boo waree war nga donte nag kilifa nekkul koo xam ne dañ fi war a yaale ci moom di dem ak ñëw parce que dañ koy jox ciram teg ko fa mu war a ne mhm. waaye nag tey boo amoon tey ay besoins yu war a tax nga gis Macky Sall ba ñu xam ne lii mhm. euh, war na mën a ne defe naa bu keroogee warul am lu la koy jafeel muy ay portefeuille yooyu war nañ a ubbil porte ko loo xam ne nii boo fa jógee nañ xam ne yow mi gisoon président ci ay balaa balaa quoi kon mbër yi defe naa seen droit lañ nekk ñoo ko gisandoo donc euh, ñoom itam ay citoyen lañ ah. am nañ ci droit bu baax a baax a baax mhm. ñu doon ko laaj rek kii di ministre de la justice mu doonoon suñu dernier quotidien sunu làmb tey jii. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, dañuy daal di euh, rek ak euh, bii di record. donc mm-hmm. record tey dafa xëy moom itam waxaat ci kii di général Malika ci 1 million yi nga xam ni moom la remporté ci galaaw dimanche bi jàll te Jax tëggoon ko. waaw waaw mu jël ko ci confusion maanaam ci jaxasoo. parce que bu ñu nekk jaxasoo nag maanaam làmb ji dañu dem ba benn moment maanaam bu tasoon itam. bu yeggu koon du bett kenn ndax demoon nañ ba tollu foofu. mais heureusement comme la wax rek bés ba fexe nañ ba sauvé ko mhm. ba bés ba yegg mhm. yaa ngi dégg te defe naa loolu am na solo kon général Malika ci noonu la ko gagné vraiment muy loo xam ne itam lu am solo la daal mu mel ni Jax itamit euh, daal dinay am tuuti gàllankoor ci kii ba de promoteur ba ndax perte na fa lu tolloog deux millions quatre cent mille francs CFA waaw parce que li ko indi ci li ñu gis mooy ay sièges yu damm mhm. ak yenn affaire yoo xam ne nii euh, maanaam am na fa ah loolu nag euh, mooy li ma la rek comme ni ma ko wax sànq rek ulimat am na ñuy gàmm mais am na ñuy raas déem mm-hmm. defe naa ne tey bu fekkente ne yow da ñëw si làmba mm-hmm. làmba ji nag mbooloo ma bëri woon na benn xeetu bëri boo xam ne ni bi ñu buudee ñëw si giw bi ba jaxasoo ba làmba ji jaxasoo foofu seize moom pour seize résister fa day jafe su seize plastique foofu dam dam am fa mm-hmm. lañ cay ñaawlu kay nga ko jël loolu moom rafetul loolu du image bu doon seize cent mille francs sax pour mën jëlul sàcc di ko yóbbu yaa ngi dégg Jax tamit suñu frère la di promoteur wax ne mu ngi promouvoir lit ci def lu am am solo mhm. mais dañ koy wax rek mu gën a jël di ay dispositif am mhm. tamit li ñu gis kera mhm. vraiment ci mbooloo ëpp na ba nga xam ne comme prochaine fois dafay dellu muy dimanche na fexe ba bii yoon daal li mu jëngee jàngal ko li mu war a jëm dimanche prochaine quoi Oulimata incha allah mu doonoon euh, donc suñu dernier élément ci journal de l'arène bu tey ji ma di leen a baax di am mbégte saa su ne di jàkkaarloo waat ak yéen ah yéen téléspectateur u Equivox TV Babacar looy euh, tàggatoo. tey waaw di la remercier encore une fois di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow. Mm-hmm. di leen nuyu di nuyu sa ay mbokk ak sa ay dëkkandoo yëpp rawatina waa Medina ba nga xam ne fa nga xëyee. maa ngi nuyu Medina yëpp yëpp parce que foofu tam su ma dëkk la rawatina waa Rue 19. maa ngi leen di béggee yaa ngi dégg famille Diop bi nekk foofu yëpp. maa ngi nuyu ñëpp lébu ndoo yi ne foofu di ñaanal jàmm di ko sàqu si ñoom mais itam di nuyu suma mbokk bool bool yi parce que ku nga xam ne tamit man bool bool la di leen ñaanal jàmm di nuyu xulle mi woon si caméra bi di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi Equivox TV mais di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm daaxal ñu corona bi ba ñu gën a mën a toog suñu réew def suñuy activité ni ko bëggee ñu ngi koy ñaan di remercier ñëpp mais tam du ma fàtte ki nga xam ne nii moom moo di ah suma xarit di suma soppee di ko ñaanal jàmm saa su nekk rek ah di soxna aram maa ngi koy ñaanal jàmm soxna Arab Ndiaye maa ngi koy ñaanal jàmm saa su ne mhm. di ko wax ne ko rek yàlla na jàmmam yàgg di ko nuyu di nuyu ay kilifaam waaw di ko ñaanal jàmm saa su nekk rek amin yaa rabbi Babacar ñu ngi nuyu également euh, suñu équipe Equivox TV yëpp di leen jaajëfal mhm. li moo doonoon euh, tey li constitué woon élément wu journal de l'arène ñu ngi leen di jox tig daje donc euh, ëllëg incha allah même heure